voilà jër ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci dëkk bu sell bi di Touba xam ngeen ne ay fan yu néew wala ay waxtu yu néew rek moo dox suñu diggante ak màggal gi ñu gis na nag jamono ji euh, askan wi ñi ngi bàyyeekoo fu nekk di ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba euh, mu nekk nag événement bu mag boo xam ne nit ñi fu nekk la ñuy bàyyeekoo euh, Béatrice xam nga ne jamono ji ñu ngi ci wàccaayu ko màggal gi naka nga gisee ambiance bi nga xam ne jamono ji am na ci diggante Touba ak Mbacké waa diggante Touba ak Mbacké jamono ji mën nañu wax ne rek euh, ñi nga xamante ne ñooy gan yi ñu ngi ñëw ci lim bu takku ndaxte euh, comme ni ñu ko waxee rek euh, fan yi ñu génn embouteillage bi xawoon na feex mais boo gisee lii rek nga war a xamante ne gan yi jamono ji dikk nañ fii ci diwaan bu Touba ngir rek mën a amal grand màggal bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ëllëg ëllëg ngir rek amal ko ni ngeen ko gisee dem beeg dikk bi nag euh, fi toll nii euh, peut-être sens bi sa xaw na tane mais euh, na le si kanam da ngay gis ne embouteillage bi xaw na dans côté boobu noonu circulation bi xaw a yeex loolu day firnde rek ni lii di gan yi ñu ngi fii ci diwaan bu Touba wala rek ñu ngi faske ne euh, dikk si euh, diwaan bu tedd bi di Touba Mbacké. voilà Béatrice en tant que journaliste tey bi nga dikkee euh, gis dëkk bi xëy na am na loo xam ne nemmeeku nañ ko fi muy màggal gi ak contexte bi nga xam ne fi la tombe muy nag lu jëm ci wàllu ko nawet beeg yu ni mel mel na ni itam loolu pèlerins yi am nañ ci ay jafe-jafe yu ñu cay jànkonteel jamono ji nag jot na yenn ci kilifa yi taxaw ci fànn googee ngir mbir mi gën a mën a jàppandi. waa euh, xam nga boo gisee euh, lii di inondation yi wala mbënn mi sax laa mën a wax. Euh, taskatu xabaar nga tey nga ñëw couvrir màggal gi mel na ni yaa ngi fi doog a ñëw am na ay mbir yu bëri nga xam ne ay reportage yi nga xam ne def ngeen ko fi tey lan nga nu mën a wax ci sa première couverture màggal fii ci Touba. waaw mbégte laay am saay su ne teew ci bërëb bi alhamdulilah en tant que journaliste def pour mën a amal yenn ci suñu ay couverture def nañ pas mal de mais aussi ku ne Touba euh, bu weesoo aspect euh, lii di religieux bi euh, bu weesoo aspect bi bi ñeel wàllum religion day di am beneen aspect ku ne Touba wax économie parce que bu ñu nee wàll dem beeg dikk wàllu transport dafay jural dina doon loo xamante ne ci wàllum koom dafay am solo jaay mi petit commerce ñoo ngi gis nit yi ñu ngi bàyyeekoo fu nekk di ñëw di dëkk si diwaan bu tuubaa ku ci nekk ak li ngay jaay ku ci nekk ci domaine bi ngay bi ngay yëngatu muy lu am solo petit commerce bi fii ci diwaan bu Touba ku nekk di bàyyeekoo diwaa fu nekk ngir mën a wut si fii euh, loo xamante ne war nga koo mën a am moo tax damay wax ne di insister ni ki nga xamante ne day bàyyeekoo euh, dëkk ak dëkk di ñëw lenn rek nga ko mën jàppale muy wàllu dem beeg dikk mën a yomb ci moom circulation des personnes et des biens loolu dafay doon lu am solo donc bu fekkente ne wàllum assainissement bi dafa impacté dem beeg dikk bi fii ci diwaan bu Touba loolee du doon luy yomb ci askan wi ndaxte boo xoolee petit commerce bi fii ku ci nekk yaa ngi bàyyeekoo diwaan bu nekk ak ku ci nekk li la indi njaay mi ngay amal ci diwaan bu nekk loolee day jural koom ci wàllum koom day doon lu am solo fii diwaan bu Touba. ku ci nekk da nga gis sa bopp ndax gis nañu euh, Jakarta maani fi nga Jakarta maani fi nga xam ne oto mënu fa egg ñoom itam euh, ñu yëngu ci wàll googu. waaw ñoom ñi nga amal liggéey bu am solo parce que da ngay gis ne embouteillage bi nii nii nii actuellement des fois da ngay euh, des heures sans pour autant nga mën a am passage wala foo mën a jaar ndax xat gi yoon gi nga xamante ne xat na ko. du coup ñi nga xam ne ñooy passagers yi dañuy obligé di jël deux yi muy beneen commerce boo xamante ne day juddu ci ci ci li nga xamante ne mooy diwaan bi muy lu am solo ndaw yi di ci yëngatu. di euh, commerce wala rek trans ci wàllum transport loo xamante ne benn gaaw na ndaxte fu oto mënul jaar ñoom dinañ fa jéem a xaj ba mën a yombal liggéey bi ñi nga xamante ne ñooy amal dem ak dikk ci waxtu wu gaaw ndaxte ku ne deux roues xam ne fi mu mën a jaar oto mënu fa jaar donc ñi ngi jàppale askan wi aussi ci wàllu transport aussi di dimbali seen bopp ndaxte jeunes yi daañ ci yëngatu it ngir mën cee am lu ñu mën a yóbbu njaboot voilà xam naa kon euh, ñu xaar yeneen i reportage ak yeneen yoo xam ne euh, fas yéene nañ ko ànd ak yow rek ma bàyyi la nga tàggatoo ak mboolem ñi nga xam ne ñoo la doon seetaan voilà di am plaisir à chaque fois rek di partager li nga xamante ne mooy expérience wala rek euh, li ñu jot a gis ci bërëb bu tedd bi di Touba Mbacké di leen jox rendez-vous bu yàggul dara incha allah voilà merci merci mu nekkoon euh, Sira Béatrice Ndione euh, ñu àndoon ak moom ci lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko waajtaay ko màggal gi muy taskatu xabaar rawatina nag euh, li nga xam ne ci la ñuy yëngu ay reportage yu am solo yi nga xam ne amal na ko file waaye tamit sant ngërëm bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di saddeex mi nga xam ne moo moo nekkoon ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum caméra bi di leen sant baax di leen gërëm fas yéene ànd ak yéen ci màggal gi ak lépp loo xam ne daf fi bàyyeekoo